bonjour patriotes du Sénégal maa leen ko digoo ne woon naa leen bu Juan Branco pare li nga xam ne moo di conférence de presse bi dinaa ñëw pour defal leen traduction wolof bi comme ni ma tàmm di leen ko defalee rek donc ndax xam ngeen ko Juan Branco ndax mooy seul terroriste au monde bi nga xam ne ne dañ ko jàpp samedi tëj ko dimanche génne ko lundi mardi mu daal di yegsi ci réewum France réewum daal di ñibbi si amal conférence de presse ak même la yendoo moom it forox na loolu waaye Juan Branco ku ko bàyyi bu doon sénégalais la ba mu dem dem sangu sangu sangu bomb jël yére bu gën a rafet sol ñëw toog waaye moom fekk ko ci li lay won ne ne ni moom li muy xeex daf ko ñor alors ma commencé leen moom nee na mu ngi commencé par sant ak gërëm mbokk avocat yi nekk Sénégal surtout parce que ñoom ñu ngi jël ay risques ndax ak client bi ñuy jàppale lu ne mën na leen si dal mën nañoo see ñàkk seen carrière mën nañ si dugg prison comme maître Babacar Ndiaye mi nga xamante ne moom lañ teewoon te démb lañ ko bàyyi ginnaaw bi nga xam ne avocat yépp oloo nañu bañ liggéey fële nga xam ne moo di tribunal de Dakar bi affaire yi sérieux wee nag ci lañ ko door a bàyyi bravo encore une fois aux avocats du Sénégal bu journalistes yi defoon noonu médecins yi def noonu enseignants yi def noonu kon heure bii nii kenn si seen corps corporation yi duñ ko jàpp di ko tëj plus de vingt mu ne dama leen bëgg a xamal ne duñu bàyyi kenn ci ñun wante nax bu laajee ñu risqué lu ne ba di ci def ay kilomètres i kilomètres sax tax na ñu ciy jël ay mandat d'arrêt yu teguwul ci benn loi loolu tamit du tere ñu nekk ci seeni wet mu ne dama am chance su jàkkaarloo tey ak yéen fii nii pourtant ay nit def nañ lépp pour que ma nekk ci kasu rëbës boobu noonu ma toog fa ay weer walla sax ay ati maa ngi jaajëfal ndax journaliste yi avocat yi société ñi def pression wax ba nga xamante ne sama situation bi ma nekkoon ma daal siy jóge mais nax Sénégal am na ay junni nit yu amul chance bi nga xamante ne ne man am naa ko mu ne ñoom ñooñu nax ñoom ñoo tax ma toog fii nii tey di wax ak yéen mu ne façon bi ñu ma kidnappé parce que li ñu ma def kidnapping la du arrestation respecté wuñu dara ci samay droit dañ ma agressé physiquement te loolu du def lu dul firnde li nga xamante ne ne population Sénégal ak Mauritanie ak lu ëpp sax ci réewu Afrique de l'Ouest yi loolu lañu nekk di dund en ce moment te dafa yàgg sax te loolu dafa war a jeex ensuite mu ne li ma génnee ci situation bi du dara lu dul mobilisation nit yu bëree bëri syndicat wu avocat yi bâtonnière bi gouvernement Espagne ak Portugal ñooñu moom lu ma leer la ndax gis naa leen gis naa ni ñu ma taxawoo gis naa ni ñu ma féetee France moom peut-être peut ñoom def nañ ci dara mais yëguma ko mu ne tamit dama leen bëgg leeral ne am na ñu nekk kaso tey jii nii nii nii à cause de man mii nii dugg bi ma dugg Sénégal te ñooñu noonu ñu ngi leen di toppee li nga xamante ne ne nee nañu dañ ma yombalal man mii terroriste bi dugg bi ma dugg Sénégal te loolu du yoon dañ leen war a bàyyi xam naa responsabilité bi ma am ci yéen doomu Sénégal te loolu moo ma poussé ba ma dem fa en tant qu'avocat pour défendre sama client benn te xam naa risque bi ma fa doon jël te tamit xam naa ne bi ma fay dem am na loo xamante ne ne mën na ma ci fekk mu ne mais régime bi nga xamante ne ne moo nekk di utiliser justice pour violenter ay doomam wala pour ay mbirum politique di teg ay doomu réewam lu metti il faut que ñu arrêté mu ne maa ngi woo Macky Sall ci libération bi ñu ma yi nii na nekk buntu nu ko ubbi pour que prisonnier politique yépp daal di génn ndax loolu bu ko defee euh, dina tax ñu mën a waajal li nga xamante ne moo di demam ak élection yi ci jàmm ak salaam te ndax loolu la peuple bi bëgg mu ne maa ngi woo Macky Sall ngir mu arrêter violence bu muy teg ci kaw kii di Ousmane Sonko na ko bàyyi mu bokk ci élection yi librement parce que waaw Macky Sall moo texe Ousmane Sonko jamono ji pour mu bokk ci ay élection de justice mu ne maa ngi woo tamit communauté internationale bi nga xamante ne ne sama affaire bii moo tax ñu jéem a xool lan moo xew Sénégal ngir ñu continuer di xool ngir continuer di xeex parce que xeex boobu noonu mooy pousser li nga xamante ne mooy gouvernement sénégalais bi à ce ñu arrêter violence bi ñuy teg ci seen peuple parce que ñun noonu lañ ko defee ba daal di dem ak ñoom fi nga xamante ne ni moo di yi d'ailleurs sax loolu moo tax bu ngeen seetloo li nga xam ne moo di répression yi ak violence bi ñu nekkoon di teg seen peuple bi lu ci bëri daal di wàññeeku mu ne maa ngi am yaakaar que ne dinañu dégg su dul loolu ragal naa ne ay guddi yu lëndëm ñu ngi xaar réewum Sénégal te loolu kenn kenn du ci sonn ku dul peuple sénégalais bi te ñun yéenewuñ leen ko Ousmane Sonko yéenewu leen ko. bu mu paree loolu nag euh, ñu daal di commencer di ko poser li nga xamante ne ne moo di question yi donc mu ñëwal leen ci question yi pour mu gën a gaaw donc kii nee ko est-ce que ak li fi xew yépp di nga mujjee continuer di nekk ki nga xamante ne moo di avocat wu Ousmane Sonko mu tontu ko nekko ko tey rek jot naa ay tegtalam pour conférence de presse bii nii mu ne nee na ma naa wax ci sama situation ngir mu servir d'exemple pour ngeen mën a xam ni ay junniy junni détenus politique di dundu jamono jii nii ci Sénégal ndax ñoom amuñu chance bi nga xamante ne man moom laa am mu ne heure bii may wax ak yéen. Ousmane Sonko insuffisance rénale la amee te dara dara lu ko ko lu dul grève de faim bi nga xamante ne moom la nekk di def. ndax moom dafa def li nga xam ne moo di crise euh, hypoglycémie bu sévère sax. Euh, hypoglycémie sévère bu ngeen ko déggee moo nekk euh, koo xamante ne ne pour ñi xamul daal moo nekk comme genre yow xiif bu métti moo la sonal wala dangaa mar dangaa déshydraté wu ba nga xamante ne ne sonn nga wala fatigue moo la jàpp ba nga xamante ne ne yow faiblir nga te loolu nag bu la jàppee buñ la defalul traitement bi war sa bakkan xet na si léegi nag mu ne euh, loolu nag moo indi ñu gaaw yóbbu ko fi nga xam ne moo di urgence te ma leeral ne ñaan nañu ko ngir mu dakkal li nga xam ne ne ne mooy grève de faim bi parce que jàpp nañ ne Ousmane Sonko ñi ko soxla yaakaar ko dafa bëri trop te man gisal naa ko li nga xamante ne moo di samay bët fële nga xamante ne moo di si kaso bu xëbës dundam moo nar a li nga xamante ne moo di dund ay junni junni nit ñooñu ñu ngi xaar si moom mu nekk si seeni wet ci moment yu métti yi nii mais pas mu leen ñu ngi am yaakaar si ne dégg na li ñu ko ñaan te dinañu ko may euh, ñu ngi continuer di insister pour que mu li nga xam ne moo di grève de faim bi. question bi si topp mu ne ko ak tas bi ñu tas parti bii di PASTEF ndax yaakaar nga ne président Ousmane Sonko euh, dina bokk ci li nga xamante ne moo di élection 2024 yi mu ne ko ñun ñu ay porte-parole politique ay avocat lañ avant tout. mais li ma ci mën a tontu mooy ne même ñu tas li nga xamante ne moo di Pastef même ñu xoqatal comme ni nga xamante ne noonu leen nekk di xoqatalee ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko lépp na ngir mu bañ a bokk li nga xam ne moo di élection 2024 yi loolu du tere Ousmane Sonko nekk baatu askan wi te baat boobu nag moom dina def lépp lu mu mën ngir mu mën a ko waxal li nga xam ne moo di askan wi mu nekk ak Pastef bu dee recours bi nga xam ne ne def nañ ko euh, dina jàll wala mu nekk ak beneen parti wu coalition yi nga xamante ne ci la bokk wala mu nekk ak yeneen candidat yu nar présenté wu si turam yoo xam ne dina leen jox mandat pour ñu def ko te loolu nag Macky mu mënu si dara ñuy wax ki nga xamante ne moo di Macky avec respect na 2024 Macky Sall amul benn violence amul benn jaay doole boo xam ne ni mën nga ko def buy texe li nga xamante ni moo di peuple sénégalais ñu gis li nga xam ne moo di xalaatu Ousmane Sonko ñu gis li nga xamante ne moo di projet Ousmane Sonko ñu gis li nga xam ne moo di résultat wu xeex yi nga xam ne ne Ousmane Sonko mënee na ko. beneen question bi nag waa ji nee na ko est-ce que ce dossier CPI sérieux na est-ce que vraiment lii dina joxe dara. mu ne ko pour dossier CPI yi comme li ma wax rek ñun duñu ay juge duñu ay procureur mais nag ah mën naa la wax ne ne procédure yi démarré nañu en tout cas fii ci France parce que fii nii ñu ngi compter véritablement ci juge d'instruction yi ak procureur yi parce que ñun dañ cee am yaakaar dossier bi nag lépp ngi ci plainte yaa ngi si témoignage yi preuve dossier bu dëgër la wante nax ah li ñu doon gënal gënal ki nga xam ne moo di sama client di Ousmane Sonko gënal tamit yi nga xam ne ñoo di famille victime yi mooy ne justice su Sénégal si boppam justice su peuple sénégalais bi daal di def li nga xamante ne moo di liggéeyam Ousmane Sonko loolu la gëm moom souverainiste la moom dafa jàpp ne peuple sénégalais wala peuple africain dafa wax di régler boppam ay problème am et non di ko délégué ay nit pour ñu ko koy régler donc ma defal leen une deuxième vidéo parce que bii nii dix minutes yi mot na à tout de suite